ci guidance bi mu ñu jox lu ñoo def dinañ dem si moom wax ko ne ko ñu ngee def nii defee nii lii lañ def mu jox ñu ci xelal xel mu xelal ñu ci jox ci kàddu yu rafet yu ñu war a def ñu jógee si loolu ñu gërëm his excellence di président tamit because moom it sa suñu liggéey ba pare bàyyee ñu ko yoon buñ jaar dinañ dem ne ko lii lañ def ak lële lañ nii lañ ko tëralee mu ne defee leen nii defee leen nale ñu toppa ci ndiktalam moo tax ba tey ñun ñëpp ñu mu a daje fii nii pour màggal bés bu màgga bii duma sori ci wax bi lool parce que ñun ñëpp xam naa ne mbégte moo tax ñu sawar a jóg pour ñëw fii nii lekk nañ ba suur xam naa ne dinaa wax ne pël yi ak séeréer bi ko man yàggoon naa wax ne joolaa la pël yi ak séeréer yi lekk nañ ba suur léegi li ñoo def mooy déglu ñi nga xam ne ñoo fi am ay kàddu waare waare yoo xam ne dañ ko jël takale ko suñ développement ak lan la ci islam wax xam naa ne balaa ñoo jógee fii ñi nga xam ne ñooñu lañ tànn pour ñu mun ñoo defal wax yooyu dinañ kontaan te dinañ fi jànge ba suñ jogee fii suñ delluwaatee ñu gën a takkandiga dégg lu bari xew na si réew mi yokkute bu bari am na fi. waaye dafa mel ni kii ñaar fukki at yi ñoo mal si foog naa ne si lañ war a gën a takkandiga ndax li nga xam ne loolu lañ defangum si réew mi président Jammeh jiite ko dinañ ko mun a gën a dëgëral def ko mu sax ndax city state bi mbuga suñu réew yi Gambia nekka ñu gaaw fa eega bum xaar at yu yàgga balaa loolu di xew mun naa am waaye balaa balaa loolu di am foog ñun yëpp ñu wecci suñ jiko gën a takkandiga gën a jubluwaat si liggéey bi maa ngi gërëm yéen ñëpp di leen santa di gërëm nag national organizing committee bi nga xam ne ñu ngi bootu si gannaaw ha excellence di vice président ci seen coono biñ coono pour gis ne lii am na benn nit du ko mun a def soo gisee ñu egg si fii tey ku nekk jàppana si moo xam sécurité bi la moo xam protocole la wala sax ñi nga xam ne ñoo fi ñëw pour. defaral ñu baas bi ñu toog ak ñi nga xam ne ñoo féetee ci mbiri tooga gi pour def ñu ñu mun a lekka naan dog suñu or ni waree ñu ñuy leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla yokka seen taxawaay yéen mi nga xam ne yéen a ñëw fekkee si lii ñu wal gannaaw bu leen dalalee ak jaama ñaanal leen kenn ku nekka ñu nekka fi si jaama ba jogee koo fi delluwaat fa jógee fekka fa jaama bàyyi fii ñu jógee jaama di ñaanal réew mi jaama bi fi nekka sax fi yokkute bi gën a bari ñun ñëpp ñu gën a jëriñu waaye nag ma ñaax ñëpp tamit pour ñun ñëpp ñu takkandiga gën a jublu si at yi nga xam ne moom lañ dëkk ma li passé passé na waaye am na lu bari lu des ñu ñëpp ñu jublu ci mun a liggéey liggéey bi nam gën a rafetee jërë ngeen jëf jërëjëf madame Fatou Lamine Faye sa wax ji mut na lool mut na sekk Legi ñu oo ki nga secretary general head of civil service and minister responsible for presidential affairs moom tam mu gaaral ay kàddu Mr. Carl Bayo bismillah Dr. Carl Lilo Bayo mooy suma koto suma smalep, suma bismillah

ما في السماوات وما في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم mbooloo mi maa ngi leen a nuyu turi président alhaji have to say that again Sheikh Professor alhaji Dr. A.J.J. Jami. comme suma collègue honorable minister of education li Eh, tey bési mbett dégg dégg la comme at bu nekk te daje fii celebrate July 22nd why at mil la dafa special ndax lan ndax li twenty yet sorry two decades of révolution loolu la ñoo célébré tey ñu gestu ci gannaaw seet eh, liggéeyu rafet yiñ def ci diggante bi ñuy rafetal bés bi this is my first time My first time my bokachi ci eh, mboolo me. waaye bi mu nekkee ci biti maa ngi ko doon foloot bu baax a baax e, réew mi yëpp day kontaan ci celebrations ne comme que ren dafa spécial programme si lal dina war a bari bi ko président ni mu ko buggee mooy réew mi yëpp xam liñ jot a def ci e, twenty years yi passé so tey moom depuis three o'clock eh, borom xam-xam yi daje nañ fii di jàng alxuraan te jàng alxuraan amul njëg amul njëg eh, liñ mun a def mooy ne leen jële leen jëf yàlla na yàlla fay yokka seen xiiwa yokka seen maxaama eh, ñaareel bi mooy ñu daje. ñaanalante ñaanal réew mi ñaanal suñ njiit yi religious performance bi loo wax fii mu ne eh, dañ am na yaay alaaji jaame président eh, loolu dëgg la te bor buñ ko amee du ko mën a fay moo def dee wax ne waruñoo wax ne active la ñuy am fii ne moom moo tax daf day wax ne Gambia tax loolu dëgg la waaye nag duñ ko ci mun a génne mooy suñ jiit mooy dictat mooy inspire mooy direct ndig loolu foo ñu gërëm ko te wax ju mu wax lu mu def mu ngi weer ci subhaana taala suñ borom ak diina bi ñu yàlla dénka mooy lislaam gis nañ taxawaayam ci diina bi gis nañ lim dee def fu diina bi dem ci kanam ba dëkk moom tey foog ñu ñaanal ko moom yàlla yokk ko wér yàlla yokk ko leer te lii xew ci kanam ci fan yi ñëw ak weeks yu ñëw dinañ génn gén dinañ génn a faramfàcce ci achievement yi am ci réew mi te dinañ door tuuti rek waaye dañ bugg a ku nekk xam li xew ci gannaaw comme suma collègue lim bu wax dañoo gën a takku pour ci pour liggéey bi nekk suñ kanam ñu mun koo def ni war. bonte maa ngi leen la gërëm di leen sant ci bi ya, alhamdulilah rabbil alamin jërë ya, leen jëf docteur Kalilou Bayo yow tamit ñu ngi ñaanal yàlla ya saxal la ci sa liggéey nga fekkee si 22 July ñu xamee ko Golden Revolution fu nekk ni nag comme célébration bi ñu ngi koo maagal ci weri ramadaan ci diine boo xam ne moom nañ bokka di lislaam dinañ bàyyi ñi nga xam ne ñoo sóobu ci mbir bi di ustaase imaam yeeg ñi nga xam ne waxtaani diine a nekk seen boppa yi ñu ñëw continuer waxtaan ji su ko defee ma alhaaji Ibrahima Jaaju mu commencé li nga xam ne mooy conférence bi ñoo am si muy ay déglu ay jàngkat ñu am vaas bu baax a baax ci mbirum islam ñu commencé waxtaan